وسيمه في الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yu tedd yi daje ci barab bi di Italie góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi nuyu ñépp kàddu yi du gudd ndax waxtu wi dem na jotal leen nuyoo suñu cheikh Chérif Mamine Haydara fa tabaarakallaahu ñaanal ko yàlla wér kenn ku ne xam na ni wax naa ko démb ci ñoom Seydina Omar Diallo ak naa Omar Ba ma ni leen bu ma doonoon ab càmmoñ Chérif mooy sama ndeyjoor bu ma doonee ndeyjoor mooy sama càmmoñ moo tax saa yoo ma gisee rek te gisoo ko day am lu manqué fa tabaarakallaahu loolu yàlla moo ko dogal ci suñu diggante muy dereetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yàlla la kenn mënula xëccool dara ci mois de mai bi dañu war a ñëw conférence man ak moom yàlla dogal mu feebar mooy bi ñuy bëgg a woor ma woo fii ci Italie ñaari date yi ñu waroon conférence al man leen man duma mën a ñëw ndax Chérif du ñëw dafa feebar ñenn ñi ni ñoom dañuy fomm ñenn ñi ni ñoom carte yi génn na ba pare ma ne leen ah man de baal leen ma rek waaye duma mën a ñëw xanaa ñu seet ku ngeen bëgg ci Italie wala senegal mu def ko ñu ne ma bu ñu mënee am oustaz Pape Hann kay jël may lijjanti Pape Hann ba mu ne Amérique ma ni leen ma woo leen wax ak ñoom ñu wutal ko billet mu jóge Amérique ñëw conférence leen dellu. waaye bi ma defee loolu ci mois de mai bi septembre bi fa tabaarakallaahu ñu tëral suñu programme Allemagne Vicenza fii ci Treviso samedi bi di ñëw Brescia incha allah samedi ba ca topp Parme incha allah dimanche ba Braconeo inshallah samedi ba le 12 octobre ñu dem Lyon le 18 octobre inshallah ñu Paris le 19 octobre ñu à Bordeaux le 20 octobre ñu conférence Cannes inshallah le 25 octobre ñu dem ca euh, Bilbao Italie le 26 inshallah nous ñu dem Saragossa Espagne Bilbao Espagne le 26 samedi. ñu dem Saragossa ca Espagne le 27 inshallah allah ñu dem Marsena ca Espagne le 28 ñu Lu Senegal, inshallah waye yalla yalla ni ma tak leen bagage yi ba pare ñu tak ba pare muni cherif yow da ngay febar do dem ba xam tafsir dina dem am du dem. mané duma dem comme cherif demul nañu woote ñu fomm ko waye cherif ca mbax ga muni ma ëpp na def bobam nga hôpital mu wo mané ma dom day bo bëggee luma neex da ngay dem. ndax boo demul yi nga dara tas ci yaakaar day bari boole maak Cheikh Ahmed Tidiane sekk suñu xarit boobu ak Salimata dara ñoom it ñu wooma ni ma fokk nga dem boo demee teewal shérif loolu moo waral ñu ñëw waaye ñu ñaanal ko yàlla may ko wér ma ànd ak Souleymane ñëw ñu ñëw fekk fi suñu doom ji Abdoul Ahad waaye shérif yàlla na ko yàlla may wér ba mu delluwaat ci ak activité tane na bu baax nag macha allah ndax génn na hôpital fa tabaarakallaahu ñu ngi am yaakaar ne dina dabe mbokk yi ñu ngi nuyu aïma yi fi daje yépp ci turu shérif moomu bu ñu nuyoo aïma yi imaam Sagna fa tabaarakallaahu ñu nuyu ko nuyu imaam Alxasan Dieng nuyu assatise yépp macha allahu jaare ko ci xaaji Saliou kamara xaaj Sayer Ndiaye ak mbooleem boroom xam-xam yi fi daje ni kii Cheikh Ahmed Tidiane Dieng fa tabaarakallaahu waaye nuyu président association bi di Badara Mandiang macha allah di ku yaru ku baax ku dal ñëw na fa démb seet si ñu ci turu association bi waxtaan ak ñun seen bëgg-bëgg waaye nuyu gan yépp nag nuyu Cheikh Ahmad Bamba Souané Male nga xam ni maa ko invité tey ca tudd soosee nuyu mbooleem góor ñi fi teew suñu jaatige Seydina Omar ñan waaye nuyu jigéen ñi ñu ñëw nag ci waxtaan bi maa ngi nuyu mbooleem ñi fi daje jarul ñu naan tiijaan murit xaadir bi ma nee jullit rek ku ci gisul sa bopp manumaa régler sa problème waaye problème bi ñu am dégg nañ léegi li Cheikh Ahmed tiijaan Dieng wax ak li xaaji Sayer Ndiaye wax ñoom ñaar mënuñoo fexe fexe fexe fexe ba déggoo ci problème bi mënul ne waxuma Sayer ak Cheikh du ñu déggoo de déedéet mooy ñaar lañu bokkul boo gisee ma ni cheikh ak kii li cheikh doon wax ak li sayar doon wax du benn kii day wax ci luwaa tubaab kii di wax ci luwaa lislaam lislaam ak tubaab nag mënuñoo déggoo foofu kon jarul ñuy sonn dañuy indil suñu bopp problème bu ñu bëggee dund ci réewu tubaab bëgg suñu doom yi am kayitu tubaab doon tubaab dañuy nangu li tubaab bi indi ñu bañ a wut nag mbirum yàlla bu ñu amee ab tubaab bu ñuul ñu jël buñu ñu amee naafiq ñu jël ñu xamni ñun ñoo choisir suñu doom doon tubaab ñu assumé nak buñu déwé deewee bu yebooñ dem safara bu yebooñ dem fu mu neex way ñoo ko moy ben moy li Cheikh doon wax bu ñaarel bi moy buñu ñu suñu doon doom jullit suñu doom doon jullit dañuy fekk ci sayar ñun ñooy choisir suñu bëggee mu doon jullit dañu koy yar yaru jullit waye duñu ko yare ci réewu tubaab wutal ko këyitu tubaab mënul ne te tubaab yi même bu ñu dul jullit li ñu ñu yaatal ku néew li ñu fi am boo demee Arabie Saoudi ña fa uni immigré amuñu ko fa loolu moom na leer ñeneen ab Arabie Saoudi nga xam ni fa la Makka ne fa la Médine ne yaatu yaatu gi ngeen am ci tubaab yi laa ni amuñu ko fa li tubaab yi nangu ñoom nanguwuñu ko te ñoom ay jullit lañu kom ñun baal leen ma rek ci tàccu bi baal leen ma bu leen tàccu ndaxte waxtaanu diine la waxtaanu yar la bu ñu tàccoo rek mën na tax ma rakkaaju te rakkaaju baaxul kon li ma bëgg a jàngale mooy suñu boroom daf ni ñu yaa ayuha alladina amanu quu anfusakum wa ahlikum naaran wa quuduha annaasu walxijaaratu alayha malaa'ikatun gilaadun shidaadun laa yaasuuna allaha maa amarahum wa yafaluuna maa yu'maruun suñu boroom nii suñu borom ni yéen ñi gëm yàlla ñu ni ah mu ni yar leen seen njaboot gi yar leen leen fexe leen ba yar leen ngeen fegal leen safara safara nag matt ma koy xambe nit lay doon matt ma ñuy xambe safara nit lay doon moo tax yonent yàlla Sakariya bi mu doonee ndaw dafa toog ba mu yàgg di jooy yaayam ni ko looy jooy looy jooy mu ni ko ragal safara mu ni ko yow luy sa yoon ci safara ngay xale majeur goo di wax waxi sabara mu ni ko yaay man problème bi ma am mooy yàlla dafa wax ni safara matt mi nit la te yow bi nga waree taal reer da nga jël matt yu mag yi nga taal taal tàkkul nga yónni ma ma wutal la ay gillit mooy bant yu ndaw bant yu ndaw yooyu ñoom nga damma taal ko yooyu ñoo tàkk tàkkal yu mag yi may ragal yowmal qiyaam est ce que duma bokk ci xale yu ndaw yiy jafal mag ñi kon bu ñu bëggee doon jullit ñun ay jullit lañ gis nga yéen ñii seen woyu jur yi bi ñu leen defaree ba pare indi leen fii ci Italie ma tubaab bee keneen a ci yem mënuñ ci yéen dara dara xam nga fi ne lu ñuy def sax ñun ñii ku ciy def lu ko neex dañuy mujj sax di tuumaal ku ci yoonam nekkul dañ naan dañ koo lëggéey ak ay rab la mais xam nañ ni benn tubaab mën a tuleen a détourné lu ngeen def yéen la neex mais suñu doom yi mooy problème suñu doom yi dañu leen a indi te defaruñu leen Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu bi tubaab yi di wër di jël ay soldaar ci kër yi dañuy jël doomam Serigne Seydi Ahmed si waaw wala Serigne Babacar bi ñuy jël doom yi muy yebal Serigne Mansour ak Serigne Cheikh pour ñu dem armée kero bi ñu jógee Tiwaawan sama kër maam Tafsir Abdourahmane fa la ñu escale def nañu fa lu mat ay weer def nañ ko fa mani kero bi ne Serigne Babacar ñii ngay jël di yóbbu ci tubaab yi lu tax mu ni tubaab yi jiitu naa leen ci xale yi ba pare mënatuñ ci ñoom dara waaye ñun mënuñu ni dañuy dund ci réewu tubaab baal ma ne sayer bëgg a wut këyitu tubaab bëgg a àttew ci luwaa tubaab lu tubaab di jox doomu réew mi jox ñu ko ba pare ñu bëgg ni suñu doom dañ koy jaarale feneen fu tubaab nanguwul problème la ñuy indi te loolu lislaam d'accordu ci يلا ليه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده سوني بارام ني يين ني گم ني ان آه، مولين جلس جيل نيغا خامني ساماي نون لاجو نونو الاسلام لاجو نين لين دي ديف اي خاريت جيل جابوت بو خيي نين يوبو لين bu ngoonee ñu yendu fa yéen samedi ak sax ngeen waroon a nekk xale yi amu leen jotu samedi ak dimanche samedi ak dimanche a ngi ci màggal yi yéen a ngi ci siyaar yi yéen a ngi ci gàmmu yi yéen a ngi ci ngénte yi yéen a ngi ci nganale màkka yi waaw mais xale bi tubaab rek la xam nga ni ko doo doon tubaab mënul nekk na leer bu ngeen bëggee seen problème bii rek réglé mooy xam ngeen fi ngeen di jaar pour seen doom yi doon ay jullit dangeen ngeen fee ñëw pour liggéey xale yi ay ndaw lañ dañ leen a war a yar tollooguñ ci liggéey nañu dem ca réew ma jàngi yaru bu ñu jàngee yaru nag ba dëgër am ñaar fukki at ñaar fukki at juróom fanweeri at ngeen indi leen fekk boobu roode nañu dañ ma indil benn xale daara ja bu jóge Italie mu ñëw ni yaay ji duma dellu damay dellu tooguma ci daara ji ma ne yaay ji comme bi ngeen di ñëw da koo waxoon ni ko day ñëw visiter bu bëggee toog bu bëggul day dellu ñëw na tey jouru visite la na dellu waaye bis sàngam moom na ñëw billaahi ren jii la mënoon naa leen a tudd kan la sax waaye du ko jar xale bi ñëw visiter ñu añandoo mu dem visiter daara ji yépp yaay ji bëgg ko faa bàyyi mu ni day ñibbi ma ni yaay ji comme yaa ko noonu day visiter dellu na dellu waaye bu dimanche indi ko dimanche jot yaay ji bëgg koo indi mu bañ ma ni yaay ji wutal ñaari ponkal ñu indi ko ndax foofu senegaal la gaa yi indil ma ko ba mu agsi mu agsi toogal mu ni du toog mais gis nga bi ma ko mbéjee mu ni damay damay woo karabiñeere yi ma ni ko woowal karabiñeere yi xale bi ma sha allah mu jugi xam nga xale yi gis naa ni sax gis naa ni sax léeg-léeg xale yi juddo fi ba am yenn adi boy xol sax ño gëna bax suñu xale yële quelque problème rek lañu am xale bi mu jugi daara ja xale bu febar sax mo lay bot mu jugi daara ja defu fa juroom benn wër xale bu am góom wala gañu mo lay fajj di leen dimbali juroom benn wër la def ñibisi kera yaayam bi mu ñibisi ak legi defagul wër kere yaayam woo ma téléphone ni ma yii moom de nee na daara ji moom macha allahu ni mu mel ni mu lii ni mu laa wax wax yu baax ni ma nee na moom day gaaw am xaalis pour di dimbali daara ji parce que nee na moom yow conférence ngay jóge pour def ci daara ji mais daara ji amoo ci xaalis ndax ñu bari du ñu fay parce que kooku gis na mais xale bi nekk rek diggante Omar Niang ngóone nogay néeg bi duus bi waañ wi nga bëgg ni ko tey nga doon ab imaam du sotti téléphone bi micro yi mënul ne kon yar te nag li ñuy wut li ñuy wut li ñuy wut amul solo yàlla ne laa tulhikum amwaalukum wala awlaadukum an dikrillah topp doom yi topp wut bi xale bi na gaaw na naa ko wutal këyit mu doon italien ndax mu liggéey na dem ca witt ma na dem ca hôtel ya na nangam nangam pour mu jàppale ma ba waral nga xañ xale bi yaram yàlla nee na alal jeeg njaboot ji bu mu leen jaral ngeen fàtte yàlla ku ko ci def bu ëllëgee di nga perte li ci gën a garaw mooy doo am xale bi doo am alal ji te doo am yàlla kon gars yi pour ma dugg ci waxtaan wi nag ndaxte loolu moom du ma ci yàgg parenthèse la rek yéen a ma ko gën a xam moom daal problème bi bu doon problème bu may régler man ci sama xalaat laa wax mooy ku bëgg sa doom doon jullit piir yor yaru sénégalais day dem Sénégal mu juddu ñu ñu yare ko fa bu ñu ko fa yaree ba mu dëgër mu doog a ñëw yàlla mën naa dogal boo ko tegee ci ay loxo yu wóor am na fa ñu mën a yar boo demee daaray maam jaara jee ñu ngay yar bu baax boo demee Fass Touré gële imam Assane Dieng mii xam na ci dara ñu ngay yar bu baax tey boo demee ci ñooñu ñu ngi yar xale yi di leen toppatoo la la war boo ko fa defee ñu yaral la bu xale bi ñëwee di nga am xale sénégalais bu am diine ba pare liggéey xam li war ci diggante ndey bàyyi mu sàmm ko mais boo ko deful lu dul fii la mankat kat sayar maa ngi a bokk lu ñuy dox de waaye li Cheikh wax laa wax mooy li tubaab bi tëral nañ ci tënku tubaab bi bu ne fii bu ñu fi jaay bul fa jaay loolu du lislaam bu tubaab bi ne fii kenn du fi dóor xale bul dóor xale tubaab bi nee na xale kenn du ko yee quatre heures du matin bul ko yee boo ko yeewee dalay boole te bu la boolee dañuy nangu xale bi ci say loxo nga perte fils perte la ba ko mu nelaw ja labbay ko am na fa benn sëriñu daara bu yoroon daara di jàngale si dóor bi mu xale yi lañ ko jël àtte ko ba mu ngi ñu denc dégg nga sëriñu daara fii ci Italie yor ay xale di dóor ay xale dóor bi mu doon dóor xale yi moo waral ñu jàpp ko atte ko ba léegi mu ci kaso bi mënul nekk gars yi loolu moom jarul sax muy jël suñu temps ñun nañ dem ci diine ji te bàyyi loolu mais loolu moom mënul a nekk itaali moom mënoo feene di fi yar yaru Sénégal nekk xam yéen ñëpp xam ngeen ko loolu jarul ñu leen koy jàngal léegi tey beneen dërs bi may indi président dërs bi may indi mooy dama bëgg tey ñu waxtaane ba la ñuy dugg ci rasulillahi même yu maa ngi lay nuyu macha allah maître de cérémonie waaye gis nga question réponse yi ci biir waxtaan wi sax laa koy def ci biir wax ji ko am loo bëgg laaj rek defal nii xam nga tey lu ma bëgg ñu waxtaane ko mooy at tahaaratu laab laab ndax ñu ngi coow rek gaa yi baal leen ma de yéen amatu leen xaalis te nekkatu leen ca réew ma xam nga lu tax amatu leen xaalis mooy dajaleetu leen dara lu ngeen war a dajale ñu am ñu yónnee leen message u whatsapp ngeen yónnee ñu ko bu ngeen demee ba yónnee ba pare ñun sëriñ si ñu takk suñuy bagage ñëw da des ngeen jox ñu ko yoratu leen dara ba pare ñu ngi ñëwal di dem te taxul ngeen xam dara ci seen diine kon li sa yar wax day dellu si est-ce que ñun pare nañu pour jëfee li ñuy jàng amoo xaalis yaa ngi tumuranke yaa ngi yónnee sëriñ ba sëriñ baa ngi ñëw boo ñëwee jox ko bu ñëwee nga jox ko yaa ngi ci màggal gi yaa ngi ci siyaar bi yaa ngi ci appel bi saa yoo demee ñu naan yàlla nee na yonent bi nee na te taxul benn yoon nga soppeeku na nga meloon rek moom ngay mel ba tey est-ce que ñun du ñun daje bi nii rek moo ñu neex ak folklore bi mais du yàgg mi moo ñu neex parce que heure bi waroon naa fekk fii ci Italie li fi am ci xew-xew yëpp heure bi waroon naa fekk ñu dépassé problème yennat yi xam nga lan moo ko waral mooy dañoo jàngul suñu diine folklore la ñu gën a jàng tey nag bi ma leen indil mooy laab ñaari xeeti laab nag laay waxtaane benn laab bi mooy laab ci sa biir bu ñaareel bi mooy laab boo xamante ni taharatul xadas la wa taharatul xabas laab ci sobe nan lañu koy defee bari na kuy jaamu yàlla te yàlla nanguwul jaamu yàlla nga ndax amul laab rasulillah yay jàngale sallallahu alayhi wa sallam dafa romb ay armeel ni gars yi ñaanal leen ñu tëdd fii am na ci ñaar ñu ne safara liñ leen di dóore pour pourtant amul solo lool waaye nag yàlla dara ñàkkul solo ci moom ñu ne ko yaa rasulallah ay loolu lan ak lan la mu ne kenn ki dafa julli dund na lu mat juróom-ñaar fukki at baalu ko ëpp di julli te masul julli julli bu baax ñu ne ko lu tax mu ne ni masula julli ba am laab ñu ne ko xanaa daawul jàpp mu ni aha kay xanaa daawul sangu sangu mu ni aha kay lu waral daawul am laab mu ni bu sawaan ba pare du ferlu day dugg ci duus bi rek te eh, gars yi cinq minutes ma ñëw cinq minutes nga bëgg cee saw bëgg cee jàpp bëgg cee julli gis nga bi nga sawee noonu ba pare dox ñaari paa jàpp dem ci jàkka ji am na saw mu wadd te yëgoo ko jàpp ma toj na nabi ni kooku loolu la ko yàlla di mbugale dafa am temps boo war a jël ku ñaareel kii mu ni kii ni ko yàlla duuree mooy dóore mooy dafa am muus mu mu doon yar bàyyiwul muus mi mu fowi ba pare sàggane muus mi ba tukki tëj ko ci kër gi fàtte ko fi muus mi xiif mar ba dee yàlla ni kii sama jaam bii di muus mu tëj ko bàyyiw ko mu fori comme moroomi muusam ba bàyyi ko fi mu dee nëgal ma duma ko ci lu may def ci moom ma door koo def ma ni waaw ki sàggane aw muus bu ko yàlla dumaa ki sàggane doomam nag lu ko yàlla war a def ويقول يا وقتاني دفع أم صلاة نحن يرد بي صلى الله عليه وسلم نينا لاب موي تشابي جامو يالله كون كو أم اللاب جامو يالله غودف يالله دوكا نانغو بجيتو بلا نغي خلات ديم تدوس باك دي جاب لابل سخول غاي يالله ني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سنو برام ني يوم القيام نفي واي اندي لوني نفي صفي يالله نينا لين رك موفي صفي نيني يا ربي لالله مني خول بسيت ويتش تكنا فيق xolal ma febaru nafiq imam hasan fimu tollu tay ji ci bir julit yi nak lay wax duggal ci internet bi rek xuloo serigne diw serigne diw tariixa sàngam tariixa sàngam ñun sunnit lañu ñun mutasawwif la man nag xolama bobu problème rek est-ce que julit war naa am boobu problème gis nga Cheikh wax na ko legi jullit bu ñu ko yabee rek mooy appliqué wul alquran billahi lazi laa ilaaha illa huwa jullit saa boo dëkkee ak moom boo dëkkee ak kenn mu yab la xeeb la xoolaatal sa bopp léeg-léeg tubaab yi liñ ñuy bañe du ci ñoom ci ñun la comportement parce que alxuraan du téere bu ñuy jàng rek comportement lay jàngale waqsit fii mashika booy dox doxal ndànk wax dut min sawtika booy wax waxal ndànk yow nga yuuxu ca kaw di di déranger tubaab bi nga dëkkal mais bañ na la te fekk alxuraan bis bu jot yaa ngi koy jàng yaa ngi naan waqsit fii mashika waxdut min sawtika in naan karal soadila sawtul hamir yaa ngi jàng alxuraan ci kaw alxuraan naan la waxal ndànk ndax ki nga dëkkal yow nga yuuxu alxuraan naan la doxal ndànk waqsit fii mashika ngay ki dëkk ci suuf bur wi di ko déranger mu dem ci kër bi ñiiri yi boole la nga daat ni dafa raciste bàyyi alquran laabal xol ci naafiq amin yaa rabbi amin amin amin amin yàlla nañ ko yàlla boole muy benn bu ñaareel bi mooy war nga laabal sa xol bi ci fen wax lu dul dëgg alkadib sëñ bamba radiallahu taala nga bàyyi fen moo ëpp doole ci yàlla bis bu jot nga wàcce kaamil jàng xatmu <laughs> ñun du man li sama problème dëggantaan mooy damaa xamatul sax ñun ay lan lañu waxuma yéen nag de man ci sama bopp laa ko tàmbali man ci sama bopp laa ni léeg-léeg damay toog ba mu yàgg ma ni man xaw ma lan laa man duma chrétien duma juif duma jullit man lan laa parce que nekkuma à cent pour cent ci li nasaraan bi wax newuma à 100 pour cent ci li yahud bi wax te nekkuma à 100 pour cent ci li l'islam bi wax mën naa ni li l'islam wax sax mën naa am 30 pour cent rek laa ci ne wala 15 pour cent kon man lan la wax lu dul dëgg xoolal fi mu toll ci réew mi ci àdduna bi jullit war na fexe ba laabal xolam ci albuux du bañaate léegi Cheikh wax na ko jullit du raciste te léegi nag problème bi ñu am mooy bu njëkkaan da nga daan wax naan eh sénégalais yi ñoo soxar Tafsir Gaynde dafa iñaane Cheikh Dieng wala Tafsir Gaynde daa iñaane Imam Assane Dieng ndax Imam Assane Dieng nangam ak nangam Tafsir Gaynde daa iñaane Saliou déedéet mais léegi affaire bi génn tuut kër yi biir kër gi ci boppam jëkkër day iñaane jabar jabar iñaane jëkkër bal leen ma de damay jàngale rek fukki problème ak juróom-ñaar yoo lijjanti da ngay dégg léeg lekk jëkkër ji ni man dama ko fee indi pour mu sëyal ma jabar ji ni dafa bëgg ma toog fii mu tëj ma ci kër gi te duma liggéey te damay liggéey daa am lu ma war comme ni mu ko waree iñaan dugg na iñaanante bañante dañuy dem ba bañante te nabi nañu laa tabaaxadu bu leen bañante alxasadu iñaan gi xoolal ci ñaan gi ci réew mi walla ci àdduna bi kenn ku يلا ني ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله سوني بروم ني مو نخ دي لين دي اناني نيت ني تي لين يالا ديفال سيل يالا بولين كو نيات بالين ما رك بالين ما رك با تي كانام ني بيغا سراخي صاح بالين ما رك با تي كانام نخ مومان بي دال بيغنا نغين كونسانتريو باسكو نك مان بالله دي ماي روس غيس نغا جورومي ات يما في نيو دي وقتان بالله والله تالله لا وخ juróomi at yi ma fii ñëw di waxtaan saa bu ma ñëwee ñu indilaat ma ay problème mu détail yoo xam ni jàngale woon nañ ko ci lislaam damay rus ndax dama naan xam naa na ma ko jàngalee woon moo baaxul moo tax des fois man je préfère li may bari folklore ak coow lépp léeg-léeg bu ma newee ci bind bii li may préféré mooy ñu toog déglu ko te fas yéene koo jëfe yàlla ne subhanahu yow mi jóg xool Alioune juuf iñaane ko yàlla ne déedéet defoo Alioune Diouf dara man yàlla kay nga def ndax Alioune Diouf li ne ci moom ba nga iñaane ko du moom moo ko defal boppam man yàlla maa ko tànn ci sama biir jaam yi ma defal ko ko kon boo ko iñaanee man yàlla nga d'accordul ak man li ma def te nag man yàlla ku d'accordul ak man attaqué nga ma guerre moo tax ku iñaan du avancé ndax yàlla miy avancé mbir yi kuy guerre ak moom fooy avancé bu ma jëlee laab ma topp ko du ñu fi jóg laabu biir gi bu ma ko toppee dinaa dugg ci alxiibatu jëw biir saal bi sax jëwante nañ fi am na koo xam ni ba keneen ka di dugg mu nga ko naan moo waaye yow kii kum bàyyi këram waa lii lan la ci puudar ah kii de yàpp nañu am na ko ni xoolal ustaas yi gis nga leen de nii nga leen gis nii li ñuy wax gëmuñu ci dara ustaas yi tamit nee nañu xoolal góor ñi gis nga leen nii nay ñu saraxe baal ma la ma bëgg a jàngale rek lan laa bëgg a jàngale mooy bëgguma ko fii féetale ñenn ñi bàyyi ñenn ñi moo waral ma jox ku ne dara damay joxe misaal rek ci ni ni jiw garaawe te lu jotaay xat xat xat ñun ñëpp kenn ku ne yëg nga ni léeg-léeg di nga wax ci nit loo xam ni bëggoo mu dégg ko te loolu mooy jëw ndox bu ko déggee mu naqari ko gars yi gis nga bu ñu defaree suñu biir ba pare nag ñu doog a jëm nag ci laabu set nag set gis nga bu bu comportement yi setee ba pare du ñu am problème ak tubaab du ñu am problème ak naar du ñu am problème ak kenn te nag gis ngeen problème bi ngeen am fii ci saal yi sénégalais yi laay waxal de problème bi ngeen am fii ci saal yi saal yu bari nangootuñ koo jox sénégalais yi ndax lan mën naa am dañuy taqal man naa am bu tasee dañuy ne ca mbedd ma di wax mën naa am dañuy yàq man naa am du ñu respecté heure bi fi ne nii agence de voyage yi tàmbali nañ koo am màkka léegi hôtel yu baree bari màkka dañ naan dootuñu luye ñoom seen hôtel sénégalais laay la xew Sénégal dafa kenn da koy nangu fu la neex gas foos fu la neex sotti suuf fu la neex jaay te bu ñu waxee nga ni mbedd mi mbeddum mbuur la ñëpp a ko bokk lu ñëpp bokk nga jël ko bàyyi ñëpp loolu jaa loolu ngor la lu ñëpp bokk kay da ciy jël li nga moom bàyyi ña ca des la ñu moom problème boobu lañuy ñuy am kon bu ñu setee ba suñu comportement xoolal ñun ñëpp d'accord nañ ni Chine chinois yi la fa doonul jullit moo ëpp la doon jullit waaye adduna bi yëpp d'accord nañ ni chinois day yaw waaw lu tax chinois bi jàngul alquran àdduna bi nangul ko yow ñun Sénégal ñu ne quatre-vingt-quinze pour cent léegi ñu dem bëreewu jullit yi am ñuy bañ lu ñu seen hôtel ngir lan suñu comportement kon bu comportement bi setee ba rek le ñu doog a dem nag ca wanag wanag pour jàpp nag pour jaamu yàlla gars yi dama leen di laaj man day dama bëggoon a tuur ndox wala dama bëgg dem toilette wala dama bëgg a tabax ab toilette nan laa koy tabaxe wala nan laay demee toilette dama bëgg nag mu doon bu ma laajee lu ngeen xam ngeen tontu ma man dama ñëw ba fii damay dox ci mbedd mi ba yàgg ma safa dem ginnaaw kër ma ñëw ba ci benn taatu garab ci àll bi ma jonkan fa nan laa koy defe damay laaj de ah <laughs> am na ku wax lu am solo mooy nee na damay juwaatloog ngelaw li mooy lan nan laay juwaatloog ngelaw li mooy bu ngelaw li jëmee nii man ma jëm nii du loolu nga wax wuyu ma waay waxuma am na ku ni ma bu ma jublu penku eh, kon mooy bu penku bi nekkee nii ma féete nii du loolu nga wax d'accord ngeen gaa yi gis nga tey mën nañoo def njàng mu neex moo xam bu ñu ñibbee lu baree bari dinañ ko xam te lu metti ah déggal gis nga question gis nga li ma dugaloon ci biir mu doon piege am na ku ko génne nee ma taatu garab gi nga koy defee dañ koo aye dañ koy tere kon bul ko fa def ndax lan fu ñuy kerloo la di fa féexloo kon bul ko yàq non gars yi macha allah lii moo may neex. kon d'abord bi ma koy def ci àll mooy du ma jublu penku duma wan penku gannaaw nii laay def bu penku bi doonee nii duma ko jublu duma ko def nii. nii laay def parce que ngelaw toujours nii lay def penku lay def nii baa sow moo tax nii rek laay def bu ko defee dinaa bàyyi penku dinaa bàyyi sow bu defee nii fa koy def benn bu ma ko def ci kàmb gu ma xamul ku ko gas mën nga ko faa def ci ak kàmb am lu ne ca kàmb ga génn gaañ la wala yow nga gaañ la ca kàmb ga muy benn kon beneen bi mooy bu ma ko def ci taatu garab ker ker bu ma ko fa def ndax ker googu nit mën naa dox ba bëgg a féexlu ñëw bëgg faa féexlu kon bu ma ko fa def kon bu ma amul fu ma ko defee nag bu ma amul fu ma ko defee mooy solution amul lu dul àll bi naa dem ba foo sori ca àll ba ma bañ a jublu penku bañ a wan penku gannaaw bañ ko def ci kàmbug jàmbur ma def ko fa waaw bu ma paree nu may def pour raxasu ndax aw ma ndox wala bëgguleen ma waxtaane lii bu ngeen bëggul ma bàyyi ko wax leneen bi baax na wax léegi pare naa nu may def pour dem julli ji aw ma ndox de lu may def damay jël bant am na ko ni ma dangay jël suuf am na ko ni ma da ngay jël xobu garab kon daal comme waxtu bi dama xat ma jël bi gën a gaaw mooy damay def li ñuy tudde al istijmaaru comme awma al u te maa u mooy def istinjaa kon damay jël al xijaaratu muy xeer ma def istijmaaru damay jël xeer boo xam ne du ma gaañ xeer bu liis lay doon bu ko defee ma fomp ko ci bu ma ko fompee ba nga xam ni jël naa beneen xeer ma fompaat ma gis ni amatul tache ma xam ni set na léegi nu may def damay jàpp damay tiim ndax aw ma ndox bu ma tiimee rek mën naa julli te bu ma jullee julli gi baax na muy benn bu ñaareel bi mooy léegi dama bëgg a sangu nag tey sangu laa bëgg waa léegi lan mooy waral may sangu moom laay laaj gaay bu ngeen ko xamee ngeen wax ma benn am na ku ne ma boo àndeek sa boroom kër kon danga nga ciy déggee boroom kër bi ànd ak soxnaam it nag boobu sax nag mën naa ko gën a yaatal waaye waxtu wi dafa xat xam nga lan laay wax mooy saa bu góor àndeek jigéen moo xam jabaram la walla du jabaram wala bu jigéen ànd ak góor moo xam jëkkëram la wala du jëkkëram wala boo góor jël awraam dugal ko ci ab pay pay ba mu ko dugal même bu dul nit sangu war na ko nga fekk par exemple baal leen ma ci wax ji booba ba ko téere bind amul woon mais léegi am na nga fekk benn xar wala bëy nga daal di koy sëy xam nga léegi gis nga ñoo xam ne dañuy sëy ak seen xaj te boobu ba ko téeree wax booba loolu amul woon te léegi yàqu jamono àgg na fa saa bu góor jëlee awraam def ko ci payu lu mu mënti doon moo xam la mu ko def luy dund la moo xam lu dee la moo xam nit la moo xam du nit li tolloo ak bopp bi saa bu duggee rek sangu war na la muy benn mooy àndandoo maxiibul xasafati fil farji saa bu xasafa mooy bopp sakara duggee ci pay ak pay bu mu mënti doon sangu war na la muy benn keneen ku ma mën a wax ñaareel bi bu ñaareel bi soxna si moom kaar yow fan ngay jiite imaamu fan nga <laughs> Corneliano ah wa yow moom mat nga imam bu ñaaral bi neena ma al haydu moy lan mbeureuk sa bu jigen gisee bax ba bax bi arrêté sangu war nako moy deret ji jigen di gis wer wu jot deret jooju nak man nga ko gis ben fan mu arrêté man nga ko gisit maximum bi fukki fan ak juróom la sa bu matee fukki fan ak bu arrêté demal sangu So arrêté wul demal nga sangu tay jaamu yalla ndax febar waye dotul deret dereeti mbeureuk legui nak bu dee dang koy gis ñetti fan nga gis ko ñetti fan bi yoon arrêté wul nga dolli ñeenti fan arrêté wul nga dolli juróomi fan arrêté wul nga dem juróom benni fan arrêté wul da ngay dem nga sangu ji nga jaamu yàlla ndaxte weer wu jot deret jooju du yokk lu ëpp ñetti fan ñetti fan lay yokk léegi mois prochain 6 jours ngay jël boo jëlee 6 jours arrêté wul nga dolli 3 muy 9 bu ko defee boo amee 9 même bu arrêté wul sangu jil te jaamu ji yàlla te faju ji léegi 9 mois bële di ñëw léegi 9 léegi dem nga neuf arrêté wul yóbbu ko douze boo demee douze arrêté wul sangul jaamu yàlla léegi weer wa ca topp léegi douze ngay jàpp ni moom nga koy gis gis nga ko douze jours arrêté wul dollil trois muy quinze boo dollee quinze arrêté naag arrêté wul demal sangu ci jaamu yàlla léegi weer wa ca toppaat jàppal ni quinze jours nga koy gis quinze jours nag du ko saa bu moom bu arrêté bu arrêté wul sangul te jaamu yàlla kon damul xay di dereeti mbërëg saabu bu arrêté ci jigéen jigéen ji war naa dem sangu ji bu ñetteel bi ban la daree ci gisin ndaw si nee na ma boo amee doom mooy damul nifaas yi kon jigéen ju am doom ju boo wasinee rek mën naa doon tay tay nga wasin amatoo benn dereet tay tay waaye da ngay sangu mën naa demit 60 jour juróom benn fukki fan waaye du ko ëpp bu ko xësee mat sangu ji bu ñeenteel waaw da nga am aywa. voilà soxna sii day laaj nee na dafa def opération moom wasinul normal mais moom bi mu bi mu wasinul opération lañ ko defal bi nga opéré doo sangu xam nga lu tax doo sangu mooy boo sangoo mën na la gaañ waaye saa boo wéree da ngay sangu dem jaamu ji yàlla muy damul nifaas yi bu ñeenteel bi mooy ban kii nee na gént gént dara génn ci yow gént du tax a sanguwaay xam nga loo may wax rek bi gën a gàtt laxaat li nga wax lool la de mais xam nga noo koy waxee danga naan génnuk ma nii yu mais boo nee gént déet bu ñuy jàng nag moom dañuy àgg rek nañu ko ànd ak yar rafetal ko ba nit ñi comprendre ndax nee naa leen njàngale warul tax lenn li nga di ko tudd gis nga Badara Mandiang mi bu fekkee dama koy jàngal mbej te feeg mbejuma ko du xam ni lii mooy mbéj jàng mbéj wàcc na ko bu ma ko expliquer dóor ci kanam mu ni mooy lan ma ne ko dóor ci lex mu ni loolu mooy lan loolu nan la mën a nekkee fokk ma ni ko réll ni ko lii la loolu jàng ko wàcc na ko moom du farate ci moom pour mu xam ko nit ku am xel doful am na loo xam boo ko expliquer da koy xam bu ko xamul rek dof la te dof du jàng moo ñu ni génnuk mani yu génnuk mani yu rek déedéet bi lazzatin moo taada mooy li koy génne day doon bànneex lu ñu xamee bànneex waa léegi baal leen ma jigéen ñi léegi mani yu bu génn ak bànneex man daal damaa dugg ci boutique bi di sàcc bi may dugg di sàcc ñu jàpp ma dóor ma ba ma yàq sama yére yi te li ma ko yàqee kat ma niyu la léegi nag ma bëgg a julli lu may def damay sangu eh ñii nee nañ déedéet ñii ni waaw wax leen bu ngeen ko ñemee waaw wala déet du ma sangu am na ñu ni da sangu lu waral may sangu ma bi ma génne moo waral may sangu pour mu gën a gaaw déedéet du ma sangu xam nga lu tax mooy déggu leen li ma wax mooy mëni yu bu génn te li ko génne doon bànneex ndax ay dóor bànneex la <laughs> maamul yàlla boo ko yàkkati Ablaye jërëjëf Ndiaye mani ce que ay dóor bànneex la dóor kay ko ca génne mëni yu bànneex génnewu ko kon doo sangu xam nga nooy def mooy dangay ngay dem nga fóot sa yére bi raxasu dem jàppi julli ji waaye sangu waru yii moo jar a beneen bi mooy damaa tëdd di nelaw ma gént bi ma géntee maa ngi ànd ak sama soxna di sëy ak moom nag ba yàgg rek ma tiit ci nelaw yeewu bi ma yeewoo ma gis ni takkuma dara damay sangu wala du ma sangu duma sangu voilà waaye léegi gént naa nag moo xam damay sëy wala sëyuma bi ma yeewoo ci nelaw làmb sama kanam ndekete man kat génne naa ndox damay sangu wala duma sangu damay sangu boobu la laxaat dooy wax beneen bi mooy damaa toog ak jigéen wala ma toog man rek di fowe sama bopp di fo moo xam lu ma mënti fowe appareil la wala du appareil sama loxo la wala du sama loxo maa ngi fo daal di ci daj bànneex di foo di ci daj bànneex ba yàgg ma génne ndox moomu damaa war a sangu ndax ndox mi li ko génne bànneex la waa léegi ndox mi génn na benn kon dereeti mbërëg dereeti gësin xasa a ah, Euh, zakara bopp zakara bu dugg ci pay bànneex bu génn te la ko génne ah mëni yu bu génn te la ko génne di bànneex ñeent yi mooy waral sangu léegi bu ma waree sangu lan laay sangoo ndox waaw kay ndox laay sangoo léegi man damaa dem yoon yónni sama doom ni ko wutal ma ndox mu ni ma robinet dañoo tëj teen yi teen amu fi ma ni ko wutali ma ndox ca teen ba caa mu ni ma teen amu fi ma ni ko kon wutal ma ndox ci géej gi mu dem duyal ma ndoxum géej indi ma ñam ko mu saf sàpp ak xorom ma bëgg a sangu kii ni ma mën naa sangu kii ni ma mënul sangu du def mën naa sangu mën naa sangu waa man damaa duy ci robinet bi nekk teg sama doom jël potu xorom bi sotti ko ci ma dem bay sangu mu saf xorom mën naa sangu wala mënul sangu eh waaye yéen ma xanaa du xorom du xorom rek kay parce que bii ndoxum géej gi moom ak xorom si ñoo dëkk kon mën naa sangu ndox mii nag dañ cee def xorom si ñoom ñaar dëkkuñu kon ndox mi fokk mu doon ndox moo xam ni maa ut tahuur lay doon maa ut taahir am na waaye mënu la laab maa ut tahuur moo mën a laabal ndox mi ñu sotti xorom mën naa togg mbaxal mën naa togg maafe mën naa ñulug ceeb waaye mënu la jàpp ndox mu amul dara wala ndox naturel bi jóge ci géej gi moo mën a sangu waa léegi bu may sangu nan laay sangoo léegi loolu day jël temps damay taxaw nii rek pour mu gën a gaaw yii lañ war a jàngal suñu doom yi ndox mi di ñëw li ko doore sama jumbux ba sama óom ma raxas ko kanam ak gannaaw bu ma paree ma jàpp jàpp benn benn bu dee ni satala la dama koy teg sama càmmoñ ci laa koy gën a jekku bu dee siwo wala paan ma teg ko sama ndeyjoor ci laa koy gën a jekku bu dee sas damay jàkkaarlook moom jàpp loxo benn benn benn sëlmu benn loxo ba fii benn benn bopp aller retour damay def tour dem ñëw benn defaat ba mu fees ma sotti ko ci defaat ba mu fees ma sotti ko ci kon baal ma foofu jigéen ji meesu boo ko dindiwul amoo sangu bu def ma defaat nii sama loxo ba mu fees ma ñëw defaat nii sama loxo ba ma ñëw daal di sotti sama côté ndeyjoor mu di bomb ba ci tànk yi côté càmmoñ di bomb ba ci tànk yi bu ma paree moment boobu bu sama loxo liy xonq ci sama loxo bu laalul sama awra mën naa dem julli ji jarul may jàppaat bu fekkee nag lii xonq ci loxo bi moo xam baaraam yi la wala biir ténk bi bu xësee laal sama awra nag man góor damay dem jàppiwaat pour mën a julli bu fekkee jigéen la sa loxo bu laalee sa kaw awra taxul mën ngaa julli mais boo jëlee sa baaraam dugal ko ci biir su boobaa fokk nga jàppaat pour mën a julli waa léegi damay laaj kii moom dafa yeewu rek war a sangu set ñëw tijji sas bi rek taxaw di sotti pare dem ñu wax ko mu ni sangu naa baax na wala baaxul bu amee yéene baax na soo man même bi may sangu indiw ma yéene dama ko fàttee wax bu amee yéene baax na mais xam nga yéene coow li mooy sew-sew bi ci yéene mooy yéene du lu ñuy fàtte bi ma jógee sama néeg di dugg ci duus bi am yéeney sangu manuma koo fàtte ndax sangoo ma fi dugal du wax léeg-léeg ñu ni fii ngay waxe yéene yéene du lu ñuy wax lu ñuy fas la ci xol la man a innamal amalu binniyaati la yonent bi wax lépp yéene la xam nga lan lañ ci jublu mooy man damaa tàng ñëw dugg ci duus bi di sangu tàngaay bii ma dugal ci duus bi may sangu ma ñëw sangu sangu set sangu set taxumaa dugg tàngaay moo ma tax di sangu parce que bi may dugg intérieurement man tàngaay bee tax may këppoo ndox mais nag dama koo def sangu set kon aw ma yéenee sangu set mais man damaa tàq ñëw dugg pour lan sangu set bi ma duggee di sangu set waxuma fas naa yéene sangu set yéene naa ba pare moo tax sangu ba baax na kon léegi lan la ñu bëgg a jàngale mooy sangu set daal ñeenti faratal la am an yetu yéene mooy da ko ciy jublu ak dal ko ragg mooy bomb alfawru gaaw mooy looy def balaa beneen baawaw nga def ba ca des alxumuumu matale mooy kaw ba suuf na lépp mat kon bu duggee ci sas bi sotti rek di bomb kaw ba suuf mu bomb fépp bu paree am na sangu set defewu ko nag sunna ni ko yonent bi daan defe waaye sangoom baax na xam nga kan laa ci jublu mooy kii doog a dugg ci lislaam te mënagul sangu normal pour ñu bañ ko sonal nañ ko ni duggal rek te yéene di bomb bu ko defee muy jàng di jàng ba ba muy mokkal lislaam jafewul xamoo ni léeg-léeg ñun suñu ñàkk jàng moo ñu sonal ci lépp lu mu mënti doon gars yi gis nga bu ñu jàng sangoo ba pare léegi lan moo des mooy jàpp jàpp ñun ñépp xam nañ ni jàpp moom jarul yàgg laab la lan mooy waral jàpp baal leen ma benn mooy ngelawal bu ñaareel bi boo tuuree ndox bu ñetteel bi boo tuuree dugub mooy dem ginnaaw kër bu ñeenteel bi boo nelawee nelaw yu xóot day sabab njàpp lu toj kon mu ngoog jeex na dem ginnaaw kër ah non jigéen ñi man gisoo ñoom rek laay laaj sax ñoom ñooy sañse ñooy saraxe ñooy tontu question yi góor ñi yàlla leen yàlla fay waaye jigéen ñi yàlla na leen yàlla fay kon lii saa bu ma ko defee naa xam ni waa léegi bokk na ci lii sabab njàpp lu toj mooy bu dee góor sa loxo li ciy xonq laal sa awra bu dee jigéen dugal sa loxo ci biir day jàpp day day toj njàpp bokk na ci liy sabab njàpp lu toj mooy nga laal jigéen te jublu ci bànneex baa nga am ko ca te jublu woo ko ca wala nga am jublu ko ca am ko ca benn jigéen damaa romb ma di ko xool ba mu yàgg ma ni i mais xale bi xale bi formam bi rafet na nëgal ma tàpp ko bi ma ko tàppee yëg ci bànneex sama njàpp toj na ma tàpp ko yëguma ci bànneex sama njàpp toj na ndax sama yéene moo doonoon bànneex kon sama jàpp toj na même bu ma ko ci amul wala jigéen ji romb ma xalaatuma ci moom dara mën naa am sax jabaru jàmbur la mu nuyu ma ma bàyyi li lislaam wax lislaam nee na bu ma jox loxo jigéen ndax dafa araam mu ñëw jox ma loxo ma daal di koy jox loxo man tamit dëgër fit waaye bi ma ko joxee loxo ma am lu ma yëg xam nga kon bi ma koy nuyu wutuma woon dara mais nuyu naa ko am lu ma yëg su boobaa sama jàpp toj na damay dem jàppi sa jabar yow nga tàpp ko dara newu ci waaye boo ko tàppee yëg ci dara sa jàpp toj na jabaru jàmbur ko ko ñemee tàpp ba kenn tàpp sama jabar sa jabar mu romb la nga tàpp ko dara newu ci mais boo ko tàppee yëg ci dara sa njàpp toj na amoo bàkkaar waaye sa njàpp toj na ndax am nga ci bànneex bu la rombee nag nga ni naa ko tàpp pour sàcc bànneex far nga tàpp ko pour sàcc bànneex waaye jotoo am bànneex sa njàpp toj na ndax sa yéene mooy bànneex nga doon wut gaa gis nga lii bu ñu ko jàngee ba mu leer ci suñu bopp ñu fexe laabal suñu xol fexe ba laab ci suñu biir di jaamu yàlla dégg nga lii sayar wax léegi sayar ne gaa bu ngeen bëggee seen doom yi njaboot yi bañ a am problème mooy dee leen leen digal ñuy julli xam nga lu ko waral mooy bu ñu doonee jullit yàlla ne ya ayyuha alladina amanu stainu bi sabri wa salaati wa innaha la kabiratun illa ala alxaashiin yàlla ne problème yi ngeen am fii ci Italie ak problème yi ngeen am ci Sénégal amul benn sëriñ bu ko mën a régler na leer ñun bu ñu ñëw fii di leen nax nañ leen wax dëgg ngeen jox ñu seen alal te yàlla tax mais bu mu tax ñu leen di wax lu dul dëgg sëriñ see leen ëpp problème fuuf politicien yi leen ëpp problème fuuf problème yi ngeen am benn jëmm ko mën a régler te mooy yàlla yàlla ne bindal naa leen ordinance bi ngeen di jaar ba ma régler ko ñu ne ko yaa rabbi ban ordinance moo koy régler mu ni muñ ak julli fii dafa metti mais da ngeen di muñ waaye ku ne nga woo ko senegal mu ni la fayeekuuma la mais yónneel cinquante euros ñu defal la sarax yow cinquante euros yi ngay yónnee sëriñ si boo ko dajalee woon sa problème bi réglé man gis naa Sénégal gis naa fii ci Europe bii ñu may yónnee pour ma jëndal leen jaaro man ngaa ku ma ko sant damay bañ ndax jaaro yi ñuy jaay ci tele yi ma ni leen mais jaaro bi la sëriñ bi di jaay te da koo publicité ci télé bi pour nga gis ko te nee na jaaro bi boo ko takkee loo jaay mu jar lu tax sëriñ bi di publicité di fay moom du takk jaaro bi rek te jaay bu ko takkee jaay kay war naa jaral man sax dem nañu ba ni ma sama jaaro bi sax jaaro si la xamoo li la te jaaro bi at mu jot ma changé ko su ma demee màkka laay jënd jaaro dindi ba ma yoroon takk beneen bu ma ko mayewul waaye nee nañu sama jaaro bi nangam ak nangam ak nangam lu ne waxal nañ ma ko ci jaaro bi fi ne bu ma jekki woon rek fi ne bëgg a tiriyande damay wut ay jaaro yu bari yu mel nii daal ni gisu leen ni ma mel xam nga lan moo ko waral mooy jaaro bi bu ko defee kenn dootul gis na mu mel fekk man kat ni ma mel dara baaxu ci macha allah sant naa yàlla nag ci ni ma yàlla def waaye sama jikko laa wax ak sama biir sama dara jagul man xam naa sama bopp ndax doomu aadama gën a xam boppam waaye su boobaa di nga gis koo xam ni moom na mu mel man laa bëgg a mel mais day weddi boppam topp ma oustaz tafsir ci sa jaaro bi laa bëgg yónnee 100 euros oustaz tafsir ci jaaro bi laa bëgg may yàlla ne jaaro yi ndombo yi gàllaaj mu butéel yi dara du ci régler problème yàlla ne man mi leen teg problème yi maa xam lu koy régler moo yaa rabbi lu koy régler mu ne bu ngeen bëggee mu régler benn dee leen muñ bu ñaareel bi mooy dee leen julli bu ngeen dee julli te julli gi di dëgg tàllal seeni loxo bàcc ñaan ma man yàlla ma réglé problème bi maam Seydi Hadji ma de kera ba muy ñaan ñaanul Cheikhu Tidiane déedéet ñaanul maam xaaji ah Cheikh Cheikhul Hadji Umarul Fouti déedéet kan la ñaan دني أشكو إلى الله حاجة ليس يرفعها سواك سواك يا ربنا يا الله يا الله أشكو إلى الله حاجة ليس يرفعها كنتي سالبي كنتي سالبي تبك سأجو فجو يالنا كو يالا فجو خلوخو كيغا ديندال نيكو بال ما أقبال نالا يالنا يالا بولي بال أشكو إلى الله حاجة ليس يرفعها واي جاي جو خنتلين لخو بالون تلين أقيالنا يالا بولي نيو بال أشكو إلى الله حاجا ليس يرفعها إلى الله حاجا ليس يرفعها سواك يا ربنا يا الله يا الله أشكو إلى الله حاجا ليس يرفعها سواك يا ربنا يا الله يا الله benn dégg nga kooku moom kon waxam leer na damay tawat sama aajo man Alaaji Maalik kenn nag laa koy tawat mooy yàlla te it wóor na aajo bi ma am problème bi kenn mënu koo régler ku dul yàlla yow rek laay tawat yow yàlla pour nga fajal ma sama aajo kon kooku wan na la yoon sëñ Bamba moom kera bi coow li bare Seyxul Xadim coow li bari lool ñu naan ko bi mu dimbali la demal ci buur bi mu dimbali la moom dañu a a min arrahmani laysa min albidaani wa min arrahmani ku wal bidaani laysa min albidaani wa sudaani laysa الدر والنفع من الرحمن الدر والنفع من الرحمن ليس من البيدان ليس من البيدان وسودان سوب بايو سيرن فالو مباكي ديفا دي صلاح الدر والنفع من الرحمن سوب سيرن توبا سيرن مام شيخ الدر والنفع من الزودان من الرحمن ليس من البيدان وسودان باخنا سيغ بامبا داني gis nga lor lor lu war a dal ci sa kaw kenn mënu la koo téyeel ku dul yàlla sëñ Bàmba ni njëriñ li ngay xëcc mu war a ñëw ci yow kenn mënul fexe ba mu agsi ku dul yàlla yàlla boo ko ñàkkati mais mag ñi li ñu jàngal leer na problème bi ñun gis nga li sayer wax nag billaahi mooy dëgg ñun ñooy dof-dof lu ñoo bëggul a xam mais mag ñi wax nañ ñu lu leer boo bëggee njëriñ sëñ Bàmba nee na demal ci yàlla nekkul ci loxo nit ku ñuul nekkul ci loxo nit ku weex léegi nga gis ñu taxaw naan maay faj aajo yi yow ci sa bopp aajo nga <laughs> yow nee nga yow yaay faj aajo yi te yow aajo nga d'abord man tafsir Abdourahmane ñëw naa Italie baal leen ma de damay jàngale nag man nag bu may jàngale moom fu ne laay dugg ku gis wax ji ni yaaka moom nag jëlal bi ma ñëwee Iba eh, Italie ñëw kër Omar Niang association bi dalal ma fa ma war baa def ñaari fan def fa semaine yàlla dogal Omar Niang may jox ndékki moo may jox añ moo may jox reer jox ma néeg bu ma tëdd jox ma la ventilateur mu may upp ba pare ma ne ko Omar aajo kay maa ci gaaw te pourtant man aajo laa ci Omar ndaxte lii bu may jox problème am la addurru wa nafu min arrahmani laysa min albidaani wa sudaani gars yi kon nañu dimbali koo yàlla nañu xam ni fii bu leen kenn nax kenn newu fi amul benn sëriñ wala kenn ku mën a régler seen problème biir yi nag laay wax problème biir yi ak yu biti yi ku dul yàlla kon mani nañu muñ te jox yàlla suñu bopp gis nga gannaaw lool suñu xol yi bu ko fowe suñu sa xol nit koo jàkkaarloo ni ko jox naa la sama xol bii ak biti foo ngeen di mujj mooy mu lay fowe da mujj soof te doo ci man dara mm. ndax as gor am na koo xam ne buñ ko ko xasee xamale bu ca bëggatee ne mu tëkko suñu xol yi nañu ko jox mag ña lu waral ñu koy jox mag ña mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam la ñu jox seen xol sëñ Bamba ne man de sama lépp sama bépp jox naa ko Seydina Muhammad mahabati al muxtaari Seydina حب المعاني والأهلين والولدام خير الخديم باي بسك بارا مامي دي نوخ شيخ مبكي باي سيرين سالي مباكي مامي سيرين منتقى بشير يالنا في يغتي عندك ويرتي بارك رسول الله تصب سيرين توبان اللي سي بارام سيرين يوم شيخ سيخي جن مامي سيرين نار جن نانا يا رسول الله محمد محبت يال المختار سيدنا حب المعاني والأهلين والولدام سيد بامني سيد بامني man xaadimu rasul day ñu ni ah mu ni bëgg gi ma waroon bëgg leneen bëgg yonent bee ko jël <laughs> bëgg gi ma waroon bëgg alal bëgg ka doom bëgg ka njaboot bëgg ka taalibe bëgg ko ay lix lépp génn na ci sama xol benn bëgg rek laa am mooy bëgg sayyiduna muhammad dami bàyyi ma dami sama deret man xaadimu rasul wa ahli ak sama njaboot man xaadimu rasul. wal awlaadi. ak samay doom man jote naa leen joxe leen rasulillahi. abdan xadima la muskaana li sanada. dégg nga sëñ Bamba ne. gars yi. waroon nañu nag di jàngal nit ñi waxi mag ñi. sëñ Bamba nee na man xaadimu rasul. bu leen ma wax damaa ëpp nit. bu leen ma wax duma nit. man ab mm-hmm. jaam laa xoolal ni mu wàccee boppam ab jaam laa xam nga manoon naa wax ab sang laa mu ni kon man sëñ ab jaam laa muy benn xoolal ni mu wàccee boppam pourtant mënoon naa wax boroom xam-xam laa mënoon naa wax waliyu laa mënoon naa wax sang laa waaye déedéet abdan ab jaam laa bu ñaareel bi mooy mu ni man surga laa surga ñu ni ko jaamu kan nga mu ni yàlla surgëb kan nga mu ni sayyidna Muhammad képp doon ko rek man xaadimu rasul dami wa ahli wal awlaadi fidaa uloo seet sama ñoñ samay doom jote naa ko rasulillahi abdal xadim la muskaana lii sanna daa sëñ bamba nee na man ab jaamam laa diiru ba ma wéeroo ci moom aslamtu billahi inni linnabi abada bamba nee na waat naa ko man xaadimu rasul ci yàlla naka man xaadimu rasul xillun wa ibbun wa ma abaawu yaa baawu waayu sëriñ fàllu mbàkke nee na man benn xarit la am benn soppe la am mooy rasulillah nabiyuna al mustafa xayrul wara xaradi sëñ Bamba nee na sayyiduna Muhammad mi yàlla tànn moom lay sàkku man في كل شيء وما يابا وابا بابا محمد بن من بناكم من خادم رسول محمد الاخجل انوار وخمرا باقي وقت محمد محمد انواره خمرا محمد الاخجل انواره خمرا فاركم خير من اولئكم ام لكم براءة في الزبور ام يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر إن المجرمين في ضلال وصهر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبور وكل صغير وكبير مستتر إن المتقين في جنات ونار نهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر يا كريم يا إبراهيم فعل باب المريدين لنا سيدنا محمد محمد الأخجل بأنوار خمرا بنينا ليرو سيدنا محمد قاتلنا ليرو للمصطفى نويت ما يجدد سن بنينا من يننا بسلال سيدنا محمد سنة حرا اني أحمد ñëwuma pour wut alal man sëñ ngir wut mbooloo déedéet yàllaa ko ko jox rek waaye taxu ko jóg kenn mënu ci dara nag yaasamillahu eh, eh, eh, inda jeewali ni fa isnaadeyto bi yaawali ayaasamillahu inda jeewali إبليس إسناديته بيا ولي أياس مني الله عند جوالي إبليس إسناديته بيا ولي Iblis mi yàqal gaa yi man manumaa yàqal mu sëñ Bàmba lu waral mënu yàqal lu waral mënu laa yàqal mu ni parce que ca tund jéewal falaa léewtoo ak Iblis turu yàlla wuñuy wax ya waliyu xam nga yàlla bo doon lim tubar turam yi da nga ca fekk al hamidu turu yàlla wo ñuy wax ya waliyu mom la liggey ba mom la raye sama iblis man sëñ Bamba sheytane manul ci man dara waye dal bima ñewé ñëwee benn benn bëgg-bëgg rek laa am mooy ma doon mu jaddit boo xam ne li Sayyidna Muhammad indi ci sunna moom laay tegaat ci yoon ndax fekk naa ceddo gi fekk naa buur yi ñu fowe ko lu ci bare bari ñu yàq ko man nag damay ñëw ngir delloo si sunna fa mu nekkoon man xaadimu rasul allamani rahmanu fi safinaam sëñ Bamba ni allamani rahmanu fi safina allamani rahmanu fi safina lako allamani rahmanu fi safina allamani rahmanu fi safina annani li annani xadimu fil madina déggal déggal sëñ Bamba mu wax nee na nee na man garaat bi gaa yi di wut sax wutuma ko garaat bi moom ma wut <laughs> xam nga kooku yemul ak keneen kiy wuti mbir mi bokkul ak ki mbir mi di wut gaa yi dañuy wut pour doon xaadimu rasulillahi ci Anas bun Malik la gëje woon garatu khadim rasulillah waye man yonent bi ci bopam moma tanal bopam moni yàlla jëlal domi mam jaara jeeg mam mor antasali sali jële ahmad ibn muhammad ibn habibullah nga def ko khadim rasul nee na nag loolu xaw ma ko woon waaye fi ma ko xamee mooy kera bi ma tubaab yi di yóbbu man xaadimu rasuul bi ma nee tëll sama tànk ci ci bato bi ñu may yóbbu jàpp ni dañ may yóbbu pour sànq ma fa la ñu ma xamale ni àllama nii xamal na ma arrahmaanu yàlla fi safina ci bato bi bi an na nii xadimu zil madina yàlla xamal na ma ni man maay liggéeykatu sayyidina muhammad bi nga xam ni yàlla reconnaître na ko soo wax Souleymane zak xiyaarul arabi sëñ Bamba nee na ki may liggéeyali moom la yàlla tànn ci arabi zak munilul arabi

déggal déggal déggal borom bone carré baak sàkk la yàlla ba bu ñu la laajee kan la neel mooy baayu Serigne Mansour borom daara yi boo xamul ki may wax kan la mooy baayu Serigne Moustapha Sy Jamil boo xamul ki may wax kan la mooy baayu Serigne Cheikh Tidiane Sy boo xamul ki may wax kan la mooy baayu Serigne Abdoul Aziz Al Amin radiyallahu taala anhum boo xamul ki may wax kan la baayu Serigne Pape Malick yàlla na fi yàgg te ànd ak wér boo xamul ki may wax kan la ma ne la doomi maam Roqaya Njaay ak maam Alaaji Malick boo ko xamul ma tudd la tur wi ni la Serigne Babacar Sy la ñu koy wax ndar ndar Serigne Babacar Sy Malick nee na ana soppay Serigne Babacar بكر سي يا سيدي يا رسول الله شافعنا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم وأبناءكم ذلكم قول قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل يا سيدي سيدنا بكر سيدي وسيدنا محمد يا سيدي مكاكولان يا سما يا رسول الله يومي يلا يوني شافعنا يومي خبني يا ني يوم ينادي المنادي في لأواو يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم ينادي المنادي في الواو يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك عسر علينا يصير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي بسم الله الرحمن الرحيم والداريات ذروات فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيانا يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون برمبنا كاربنين سيدنا محمد كم فياك Dakar Serigne Babacar. hey hey hey hey hey hey hey demal waay. kan moo fi yaakaar Serigne Babacar. كوكو ماي خليفة شم الديني وارث مالك علي رضا المولى وعنا وعترتي يا سيدي يا رسول الله من جاءنا خلف النداء للمنادي منكم يا سر السريرة يا سكر سكر نور الخلق يا لير من نفي خائد يا ومن من نفي خير خياري قريش يا قريش هو نعماء maxiratullahi yow la yàlla tànn suru zaati yaay sekkere jëmm safwatullah yaay tànnee fa surul wujudi yaay sekkere mi wajal dul juudi yaay gën a tabe naamaaw xiratullahi neef yàlla rasul abarul abraar gën a baax ci way baax yi mooma xayrul kaayinaat mooy gën ji nekk tee xayrul muminina mooy gën ji ñay gëm yàlla yaa safwatal wasfi yow la yàlla melal ca melal wal mawsuufi aji melal ja saadalawa wala def nga doon doon sang. yaati ba unsuri. aji teeji cosaan. man tanu aliyaaw. aywa yow ya rasulillah. muhammadun sayyiduna muhammad ahmadun yaay ahmadu mahmudu daw tur la te harawa laabal na la rabbun sabara fa yatuuru way way ca ga wëre ajdaadun ay maam wa abaaw ay baay muhammadin sayyiduna muhammad habibika alkarimi mooy soppe bu tedd bi ayni naimi mooy sew di xeewal markadul fuumi yàlla boo ko ñàkkati sama booje afdal yaasimin mooy gën ci banu wa ayni rahma mooy sew ne yërma xayrul bari البرية شفيع الأمة أكرم بي من سيد العمول أنا البرايا والد البطول أكرم بي taxawal nag taxawal ma ñëw maa ngi bëgg a ñëw de xam nga fu ma jëm waxtaan wi daal damaa bëgg mu bañ a yàgg lool ndax waxtu wi jot na xam nga fu ma jëm mooy coow li dafa bari gis nga gars bu ñu bëggee jàmm am nañu xam ni yàlla mooy yàlla mais xool leen yonent yàlla muhammad salaay salaam saa bu duggee ci domaine yàlla sax yàlla ni ko génnal <laughs> déggoo ma de affaire bi affaire bi bu doon ni terrain la dama naan dafa am dafa am limite boo xam ne suñu boroom nanguwul kenn dugg ci du yonent du sëriñ du kenn yonent bi lekk léeg en tant que nit mu juum dugg ca buy dugg yàlla naan ko ye eh, génnal génnal foofu samay 18 la bul ci dugg te xam nga yonent bi sax du koy juum ndax maasuum la dañu ko ñoŋal mais xam nga lu waral yàlla di def loolu mooy yàlla day wan ni comme kii di sama waay laa mayul mu dugg fii mayuma keneen mu dugg fii looloo tax yàlla moo ko fay duggloo ba pare daal di siiwal ni dugg na fu mu warul dugg ba ma ni ko génnal day bëgg ñun ñeneen ñi ñu xam ni foofu du fu ñuy dugg ndax bu amoon ko fay dugg sayyidina Muhammad lay doon tur wu ne ñu koy woote naxe bi dafa bari mën man man man naam sax ci laa bokk de mais bu ma tëyee micro bi lekk-lekk man am sax dama fi dul nekk man am moo tax may yàqal sama bopp waaye xam nga naxe bi sëriñ si ñun ñuy tudd ay sëriñ daa bari ci ñun ñoo xam ni dañuy naxe kii nee na maay régler yi kii nee na maay faj aajo yi كي من خمنا لي نيوغول كي من مالا اسيري كي نينا سافير داي باخ تيو يويو ييب يالا نينا ماكو يور خول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم توك يووت يي يالا ني غاي نا لير دي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يالا ني يووت اك نصران دونيو بيك تي ياو فيك توبو سين يون يونت بي توك يهودي نيو نيكو يا رسول الله مني لبيك gëmuñu ko de waaye dañu ko bëgg a ñu ne ko dañoo bëgg nga wax ñu asaabul kahfi yonent bi ni leen bu subaa ngeen ñëw ma wax leen ko xam naa ko yàlla ni ko eh eh eh dugg nga ci loo xamul alaaji Malik nee na wa qad aral waxya حقا بعد مفترا لمن وكان ردا في خاتم وكان محمدنا وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدنا مختار في الخلق وقد أرى الوعي حقا بعد مبتلى من وكان ردا في خاتم سبحان مالك وسليا يا إلهي وجزي الأبدا محمدنا مختار في الخيل على الوحي حقا بعد مفترة ميما وكان الرضا في غاية الوكم bu ngeen ma dégloo di ngeen xam ni yàlla rek mooy yàlla xoolal sayiduna muhammad li ma lay indil jàngal naa leen fu baree bari ma ni leen bi à wàcc ci moom mhm. ma dem ah à l'âge diiru 23 ans mooy kon 40 boo ci dollee 23 lu mu lay jox 63 nabi 40 ba 63 ans alxuraan a ngi wàcc jibril di ñëw naan ko yàlla nee na bàyyi ko fii Italie la boo <laughs> ko dóoree da lay boone de bàyyi ko mu def lu ko neex pourtant lislaam loolu la wax xale ba ba muy am juróom-ñaari at way juróom amul droit sax dóor ko daf ko war di fowal di ko neexal mais nag da ngay xool li nga bëgg ëllëg mu doon ko nga koy fowal ci fo yooyu di ko seetaan seetaanloo filmu Mickey yooyu di nga bëgg mu doon ko ëllëg bu amee sept ans amoo droit dóor ko booy julli woo ko bu demee nag ba am fukki at bu julli jotee te ñëwul julli ci la lislaam doog a wax dóor ko waaye dóor yi du suñu dóor yi dóor yi mooy bu mu légatal bu mu doon yar bu metti mooy rek xale gis nga boo ko yaree ni nga ko war a yare saa bu gisee ni yow papa ji mer nga ba war a xaaj day am lu mu yëg looloo tax dóor yi bantu bale ngay jël rek ni ko nii del ñëw di julli del ñëw di julli bu ko defee bu dee xale bu ñu yar te yaruñu ko ci dóor gis nga boo boo ko meree rek dèjà day jooy waxatuma la nag nga nga koy dóor ab bant waaye ñun léeg-léeg dañuy ëppal ril xale ba daanu dali fële nga pare wara dem fajj te l'islam tere won na lako wa qad ara al wahya haqqan ba'd ma iftarat miman wa kaana rida fi ghayat al wakam nabi amna 23 da al quran di wàcc jibril lay ñëw te jibril momu di ñëw ci mom kat xolal jibril ci adama ñëwu ci lu bari damay bañ mu yag motax idrissa recevoirul jibril lu bari musa bariwul nuuhin bariwul ibrahima bariwul muusa barilewul insa barilewul Moussa mi ci ëppale 400 fois la am nuuyin 50 fois la am aadama yabun li aadama Adama 12 la am Idrissa 4 la am Insa 10 la am mbooleem yonent yi kenn ku ne ñoom ñëpp li ñu am a ngi nii ñi jibril jot a wàcc ci ñoom mamalaaji Malick ne yàlla di yónni jibril muy ñëw ci yonent yi yii yonent la ñu ne kan ak kan mu ni jëlal benn yabun li aadama du boobu yabun ba ko at bul ko way aadama douze la am yum douze ah. fukki yoon ak ñaar la yàlla ma sa yónni jibril ci aadama ku ci topp demal waay wayal nuunun summa taafaliinu ah, xolal summa Muusa summa Muusa li Ibrahima adduba mi nuyin nuyin yàlla yónni na Jibril ci moom waaye xam nga ñaata yoon la yàlla ma sa yónni ci yonent yàlla nuuhin yàlla yónni Jibril ci moom mama laaj maa ngi nee na cinquante fois rek hmm. kon moo tax ne Aadama mama laaj maa ngi ne yonent yàlla Moussa moo ci ëppale ñu ni ko ñaata yoon mu ni yàlla yónni na Jibril ni ko demal ma ci Moussa nga ni ko ñu ni ko ñaata yoon alaaji Maalik ni 400 fois taa 400 fois ñeenti téeméeri yoon yàlla yónni na ko Jibril ci Moussa moo alaaji Maalik ak kan mu ni li Ibrahima at du ba Ibrahima li muy doon xaritu yàlla yëpp 42 fois la yàlla yónnee ci Ibrahima day woo Jibril mu ñëw mu ne ko demal ni Ibrahima nangam ak nangam ñu di ko wàññi di ko wàññi ba 42 fois Jibril doxal na ko yàlla yónnenti ci Ibrahima alaaji Maalik lu mu teg mu ne Maodo ah. ne ya'mulu jibaala muridan ramya bi satihi إلى الأرض لولا الريح في الواقع حقا بعد مفترة nekk ko fi de ah. li nga noppalu yëpp ba pare nekkoo fi man foo ne moo ma jaaxal ana sa jabar moo doone daalunu li idrisa isa ala ya adama lil habibi kadru alfar falatayni yonent yàlla idrisa yonent yàlla idrisa quatre fois la yàlla yónnee ci moom ah. te Idrissa kat moom dong moo duggagum aljana moom dafa jekki ni yàlla man dama bëggoon visiter aljana nen da koy nax yàlla ni ko Idriss yow sama waay nga mais aljana bala nga fay dugg dangay ngay dee mun ko ah comme sa waay laa kay waxal malakul mawti mu rey ma te rey ma ndànk yàlla ni malakul mawti rey ko te rey ko ndànk ni ko waaye fokk nga jaar safara mu ne ko boole maag maalik mooy garjee ba mën naa fa jaar sans problème yàlla ni Malick bu jaaree nga bàyyi ko mu jàll mu ne ko waaye Ridwaan est-ce dina la tijjil mu ne ko ah waxal ak moom yàlla ni Ridwaan mooy gardien aljana bu ñëwee nga bàyyi ko mu dugg day visiter yàlla xam na lépp malakul mawti ñëw na rey Idrissa Idrissa dekki na war a traverser safara man lay Idrissa malik ni ko ah Idriss bismillah legi borom bi wax na ma ding fi jaar ñu bayiko mu jall facilement mu ñew ba buntu aljana fekk buntu bi teje mu ni ridwan ridwan ni ko yow la kan mu ni ko Idriss Ridwan jox ko bat bat yi aljana mu tak bat bi dugg ñam affaire yi neex rek xëc ci piliyaanam mom mais Idriss yow deux heures de temps nga amoon pour aljana xam ngeen ni fii kenn du fi dugg di génn du ma génnaat de Ridwaan woote Idriss faaw nga génn de heure bi jot na mu ne ko du ma mën a génn Ridwaan ni nañ ko nguufaan mu génn bi ñuy nguufaan sa mu bàyyi kalpeem foofa daan ni yee eh, bàyyi leen ma ma jël sama kalpe ñu bàyyi ko mu dem di jël kalpeem tëddaat waaye Idriss yow heure bi jot na mu ni mani bu yeboo rek ngeen ray ma fii mais dama dootul génn woo leen yàlla yaa rabbi Idriss da nee na dootul génn mais Idriss daf noonu day visité mais Idriss man la borom bi maay wax ak yow yow mën nga génn wala mënoo génn yaa rab rabbi mënumaa génn de ponk naa la lool gëm la lool waaye mënumaa génn mais Idriss nooy duggee àjjana mu ne ko yaa bi yaa noonu ku fi dugg bu mu génn yaa ko tudde jannatul xuldi yi sax ba dàkk ma dugg nu may génn mun ko mais bala nga fee dugg da war a dee mu ne ko laajal malakul mawti mais da nga war yàlla ni gars yi neexul ba neexul waaye sa bàyyi leen ko fa oh. Idrissa moomu quatre fois la am gis nga mu nga biir aljana di doxantu mais bu yowmal qiyaamee bu ñu ëffee bufte bi jaam yi génn ci bàmmeel yi dañu koy caxat caxatee rek génne ko mu ne lu xew lu xew ñu ne ko sayyidina Muhammad tey dugg moo tax nabi sallallahu alayhi wasallam nee na ana awwalu naasi xurujan ida bu'isu may jëkk dugg aljana man sayyidina Muhammad wara layla fadlil muslimina lahu wal fadlu inda rasulillahi xaraar fadaay lu saabin لله جلالا حمد الله جلالا حمد الله جلالا حمد الله جلالا حمد الله جلالا حمد الله جلالا حمد الله Abdallah Jallala نيل فضل المسرعين له والفضل والفضل عند رسول الله خرار باي بسج بارا ما من نقشم بكي نينا راما راما ورا نيل فضل نيل فضل المسرعين له والفضل والفضل عند رسول الله خرار سن بابا نينا كتب الله تعالى كتب الله تبارك وتعالى Hanna baita la ilara Tarfalu malaikatu Ila Ila duba Ila duba Ila duba Ila duba bëgg sëñ Bamba wilaa Touba baayu Serigne Saliou baayu Serigne Fallou maami wilaa Touba maami Serigne Mbacke soxna loo maami Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ilaa Touba baayu Serigne Modou Moustapha Mbacke baayu Serigne Mouhamadoul Mourtada baayu Serigne Souaibou baayu Serigne Abdou Khadre ilaa Touba inna awwala baytin على للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا باي عبد الله سنبا منين إلى توبا إلى توبا بونم في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا إلى توبا سنبا منين وجه الذي يحبني يبيض يوم الوجوه تسود وتبيض yaa Touba. bàyyi ma dellu si daalu Idrissa dama génnoon tuuti rek damay ah. ñëwaat. laat yal na la yàlla fay. Idrissa li coow liy bari bari yum quatre fois la am. Ah. waa léegi jëlal bu dee mën nga calculer Moussa nee naa la quatre ah. Nuuhin ma ne la cinquante. quatre cent cinquante. Ibrahima ma ne la quarante deux. Idrissa ma ni la 4 496 ASC nuyin wax naa ko mooy 50 Adama Adama 12 508 508 ah insa moo ma dese insa xaada yaa ah. insa 10 jëlal 10 nga teg ko ca looy am 518 ñoom yonentu yooyu muy Adama Moussa Nuhin Ibrahima Idrissa Isa 518 fois la yàlla yónnee ci ñoom nee naa la kii 400 la kii 50 kii 42 kii 12 kii 4 kii 10 yonent yàlla Muhammad nag maam Alaaji Malick nee kat tun la yàlla yónnee ci moom alfan mooy 24000 fois. ñaar fukki junni yoon ak ñeenti junni yoon yàlla yónni na Jibril ni ko demal ci Muhammad ni ko sallallahu alayhi wa te 40 la ko fa tàmbalee yónni. ba 63 hmm. ans. loolu boo ko doon calculer ñaata yoon par jour la fa Jibril di dem. waaye ak loolu yëpp. ak loolu yëpp dañoo ñëw ni ko loo xam ci asaabul kahfi mu daal ni gars yi dem leen ba suba rek suñu borom ni Jibril bu fa demati. Hmm. ay waay bu ngeen déggoon li may jàngale. ku ñëwati di leen wax yenn yi dangeen ko dul sax déglu. nabi toog toog. bis bi day recevoir Jibril ay yoon yàlla di ko yónni mu toog une semaine déggul Jibril gisul Jibril mu jël téléphone am bu doon tay la bu woowee Jibril téléphone bi di sonné te kenn du ba yàgg mu dégg téléphone ba naan bu doon tay la laa lay jàngal de mu dégg téléphone ba naan ki ngay woo mu ngi jokkoo keneen mu ñal ko mu jël la mu xam ni kon Jibril a ngi wax ak ñeneen ñi moom la bëggul a waxal mu jóge ci loolu waaw kañ doom moom daal lu ngeen mën a ñàkk jàngal xale yi ñàkk a jàngal lii moom jàngal leen leen ko moom <laughs> Cheikh ba tubaab bi terewul bii moom waaw ah, waaw kañ tubaab bi nag bu tere bii nag bu ci laalee rek dugg samay 18 nag moom it nag <laughs> alhamdulilah comme tubaab bi terewul xale bu saraxe moom alhamdulilah waaw kañ ma dem ah. na bi deux semaines déggul Jibril mu ni nagal ma woote ci fixe borom bi bokk bu wootee ca fixe ba kenn du ko wuyu 40 jours moom la Seydaaji Malick ni wa qad ara toog na alwax ya wax yu ga xaqan ca dëgg baadu ca gannaaw tan ab dogante mii man ñeen fukki fan yoo xamante ni yonent bi déggul jibril bu ko woowee jibril du ko jël mu ngay woote ca directu yàlla yàlla woo watu ko te bu woowee duñu ko wuyu alaaji malik ne kaana am na wala kaana nekk na arridaa ku ñu gërëm ki fii xaayatil wakami ci dayob njàqare ndax nee na man day xaw ma lu xew man daal filtré nañ sama numéro bu ma woowee direct ba kenn du ma jël bu ma woowee jibril du ma jël te man déggatuma jibril gisatuma

مدنا مختار في الخير يا أولي ديبا مريدا لم يدد الله إلى الأرض لولا الروح زيادة مدنا وسيا والله وجزي الأبد مدنا مختار في الخزان si daama yaa ngi bëgg a rakkaaju nag eh, man baaru damay bëgg a rakkaaju <laughs> léeg-léeg ngoone dina la jox ceeb boo xam ne boo ko dóoree ah. maa ngi am na ay doom ci mu ciy def <laughs> yaxlul jibaala ah. مريدا لم يجسدي حزنا الى الارض لولا الروح ذو الرخم xam nga nabi nu mu def baax na de rajo yi daal baax na car macha allah laa rajo yi baax na nag sawit na baax na moom awu bi neex na trop yow buñ la nee rafet nga rek nga ne pourtant seul mooguma yax lul ci baa la bu ñu ñibbee ma ni ko laa tey li nga awu bu ni ma non rajo yi la mais rajo yi moom rajo yi law yow si lay waaye dara newu ci lépp baax na kaar yaaw loolu ci baax la xoolal alaaji Malick ne moom yëgagul lu mu def mais problème bi mu am mooy lan moo tax mënatul a jot ndawal yàlla xam nga nu mu def dafa dem rek ca montagne rek yéeg xaalis la ah? summeeku gaa yi ni waaw fu mu jëm mu ni muridan ram ya jussatihi damay xaru waaw lu fi jar xaru ah damaa xam ne yàlla yónni ma jaam yépp yaakaar ma yàlla lu mu ma bëgg a defal ma ne ko denc ko ba ëllëg pour bu ëllëgee boo ma ko joxee ma jox ko jaam yi ndax ñu sobe may gis sama bopp di gis sama bopp ba tooñ yàlla ba yàlla ba ma jaratul may xaar ba dee jot gàcce googu mënuma koo dund naa xaru rek te dee comme safara rek laa jëm xoola bi mu simmee koo bay dem rek jibril ni tëll jibril moom yàlla yónniwu ko de mais bëggul waa ji xaru ndax xam na ne bu waa ji xaroo affaire am yàqu jibril ñëw ni ko eh eh eh eh bul ko def innaka rasulullahi affaire la dañ lay pine rek mais affaire bi yow la de bul dem nabi wàcc 25 jours woowul jibril jibril woowu ko bu wootee du jot kenn yónneewu ko message mu delluwaat summeeku damay dem jibril ni tëll da koy damaa sàcc ñëw fi yàlla xam na lépp nag damaa sàcc rek ñëw fi lan la mu ne ko damay xaru looy xaru yàlla daf maa mere daf maa bàyyi te ku yàlla bàyyi defatoo fi dara jibril ni ko bul xaru innaka rasulullahi xaqan yow la yàlla yoon yónni dëkk la de dafa am problème bu muy régler rek mais dina wàcc moom sa waay la bi wàcc sallallahu alayhi wa sallam ñeent fukki fan ñu xëy nabi déggul dara mu delluwaat <laughs> léeg-léeg gars yi ni ma boo bàyyiwul sa yéeg yi di nga ci masa daanu man leen maara day taali yàlla na yéex waaye bu ma ciy daanu accident de travail la rek maçon bi yéeg di daanu daa ñu bëggul woon a daanu daa accidenté rek amul problème amul problème quarantième jour fi mu taxaw rek jibril ni tëll ni ko yaa ayyuhal mudassir qum fa anzir wa rabbaka fa kabbir nabee ngi taxaw di déglu nag وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عصير على الكافرين غير يصير زرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تميدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم أبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوصر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر نبي نتك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 jibril ni ko njanna baa nga naan jibril waa lan laa def nag ba 40 jours ngeen dagg ma jibril ni ko yàlla ni wala taqulanna li shay'in inni faa'ilun dhalika gadan illa an yasha allahu واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا سيد المرسلين هادي البرايا laa def lan laa def ba 40 jours yi yëpp la nga بأي ولا تبأي ولا تدل بأي سيد المرسلين عاد البرايا سيد المرسلين عاد البرايا سيد المرسلين عاد البرايا yàlla nee na waa asxaabul kahfi moom la la yahud yi laaj nga ni leen suba na ngeen ñëw te waxoo insha allah sayyidil mursalina dil baraa yàlla nee na booy waxati lu war a xew suba wala ginnaaw suba na nga wax insha allah bu soobee yàlla sayyidil mursalina dil baraa nee na jibril bu nga ko fàttee nag jibril ni ko boo ko fàttee boo ko fàttali ko nga wax ko boo ko fàttali ko waxal insha allah sayyidil mursalina dil baraa saraaya insha allahu bu subaa dinaa seeti imam Assane Dieng sayyidil mursalina dil baraaya fàtte naa ko daat ni suba dinaa seeti imam Assane Dieng sama xel dellu si ma daat ni insha allah sayyidil mursalina dil baraaya Seexul Haaji Abdul Aziz Dabakh borom bi jaaw bu rafet bee dugg ci géew gi nee na mooy sangu yonent yi moom rasulillahi yuridallahi la yàlla gërëm moom rasulillahi walidu zihra way way jigéen ñi seen soppe ba fatimatu bintu rasulillahi sayyidina muhammad mooy baayam sayyidu rusli may sangu ñi yàlla yónni fatimul anbiyaay moo tëj nu buwa ginnaawam yonent amul moom rasulillahi mustafallaay mooy tànneefu yàlla moom rasulillahi safatal asfiyaay way way mooy tànneefu tànneef yi moom rasulillahi atxal atxiyaay moo gën a ragal yàlla way ragal yàlla yi moom rasulillahi asfal asfiyaay not. maa nga Medina Baye maa nga seeti Cheikh El Hadj Ibrahima Niass borom faydu Tijaan ba latifun sara am an rakbiya yamama doomi maam asu jànka jàng maam Alaaji Ablaye Niass de Cheikh El Hadj Ibrahima Baye Niass borom faydu Tijaan bi ne latifun sara am an rakbiya yamama Cheikh El Hadj Ibrahima moo toj Niger dugal fa salaatul fatih moo toj Nigeria dugal fa salaatul fatih moo toj Belgique dugal fa salaatul fatih moo toj farida dugal fi salaatul faati moo toj Angleterre dugal fa salaatul faati moom Cheikh El Hadj Ibrahima atiiful sara am an rakbi yamama laaj day laaj day laaj li muy laaj lan la atayfun sara am anna rakbiya yamama bari bët yi ñoo rañaan wala lan la mawaatina xayri naasi li sayri sammama wala sama waru waay wi daal moo jëm ca ka gën ca min waliyatura inni unixu bi baabi gisoo ni man maa ngi gaare ci sa buntu kër wa amshi bi tëddiibin li taa musallima maa ngi dox de waaye ci yow laay dox maa ngi naan la taaha maa anzalnaa alayka alqur'aana li tashqaa dox bu ànd ak yar laay dox man baay. unaadi amiin allahi xaadina sirri ومعتز بالفاخات كنزا ومغنما اناديه طه منحملنا محمدا اناديه طه منحملنا محمدا اناديه طه منحملنا محمدا رسول الله في fii waxtu wi tollu jógal taxaw nga màggal baayu Fatima yàlla faj sa aajo. ulaadi taamun hamilna Muhammadan. ko taxaw màggal rasulillahi toogaat yal na yàlla faj sa aajo ci barke sayyidina Muhammadu. ulaadi taamun hamilna Muhammadan. woowe naa ko taa. mun hamilna. lii taa woowe naa ko mun hamandan. Muhammadan. woowe naa ko yaasin. Ahmadul. woowe naa ko yaasin. المدثر محمد ينادي طاعة ينادي طاعة أينك ينادي طاعة أينك الرسول ينادي طاعة ينادي طاعة ينادي طاعة ينادي طاعة أتاك خديم شائب الفود معدما بما كنت أحمد نكتل مخور man bàyyi ni ma lu xew ma ne ko sab jaam moo ñëw ci yow ndeysaan unaadika أناديت منحمنا محمدا أتاك خديم شائب الفود معدما koo xam ne dafa ñàkk ay karawam dafa jóg moo ñëw ci yow di la woo yow rasulillahi a azkuru xaali am kafaaka fa innama bàyyi ne bàyyi ne maa ngi jàkkaarloog sayidna muhammad ma ne ko ndax ma wax la sama mbir ma ne fi naan la man la bàyyi ñas am naa problème sangam ak problème xam nga problème yi ngeen di dund mooy thème bi loolu ma delloo si nee naa ko ndax ma wax la samay problème benn par benn wala boog doy na la pour nga xam man sama problème takaramta li min qablu ma kuntu mulzama eh, foofu la waxtaan wi yem bay nee na ma ni ko jaru ko ndax yow yaa ma teral damay def synthèse waxtaan wi président Badara gis nga yàlla baal leen ma dañuy dem ci question réponse ah, ndax waxtu wi jot na gis nga yum xam nga problème yi laay wax moo tax may indi xasida Baay Ñas bii tëje ko ko nee na bi may woo Mouhamad di ko woo di ko woo ba jàkkaarloog moom dama ko ni ndax ma wax la sama problème wala doy na ma bañ la koo wax ndax yow xam nga ko xam nga sama situation parce que yow yaa ma teral démb teral nga ma na Baay teral nga ma Tayba teral nga ma lew na teral nga ma ci àdduna bi yëpp yow yaa ma teral te booba waxuma la dara kon teema laa wax wala jarul sax ma lay wax ndax yow bi ma teral te waxuma la kay jarul may toog naa ne lii mooy sama problème xam nga kon lan laa bëgg a indiwaat ci problème bi mooy problème yi ñuy dund yàlla mi ñu ko teg te doon ñu teral démb tey mu teg ñu ay problème fii ci Europe bi nañu xoolaat suñu bopp bu dee ni suñu comportement yi ñu yoroon démb yoratuñ ko léegi bu dee ni fa way jur ya jaaroon ak ñun démb jaaruñu fekk njaboot yi tey problème yi du ci yàlla ci ñun ndax yàlla ne inna allaha laa yugayiru maa bi qawmin xatta yugayiru maa bi anfusihim yàlla ne li ma daan defal aw jaam saa bu ma ko bàyyee rek jaam ya ñoo defatul la ñu daan def kon nag fa ñu daan jaar bu ñu fa jaaratul dootuñu for la ñu daan for ndax yoon wa ngay fore suukar boo jaar boo teggee yoon wa manoo for suukar leneen ngay for yal nañ yàlla defal ñuy for suukar ci barke yonent bi ñu ngi nuyuwaat ñëpp Haji Pape Dieng ñu ngi lay nuyu Jamil macha allah ñu ziar président Mouhamad Dia président Badou Bey Seydina Aliou Diouf fa tabarakallahu ziar ñëpp ñaan yàlla yàlla nañ fekk déwén yàlla yàlla faj aajo yi. amiin ya rabbal aalamiin sallallahu alayhi li may tëjee daal mooy bëggoon naa jotaayu diine yi ñuy def bu ngeen di defaale seen journée de réflexion ngeen defaale jour ci réflexion bi ngeen defaale ci organisation yu bari yi ñuy organiser lan la ñu jural. ndax soppi na suñuy jikko ndax tax na ñu am ay kër yu ñu amul woon ndax ndax ndax ndax bu ko defee bu ngeen di génne su ngeen gisee ni jotaay yii ngeen di organiser toujours bis bu jot ak kay ñëw gis ngeen ni soppiwul jikko yi taxul ngeen defaraat toogaay yi ngeen génne ko parce que bu soppiwul jikko yi soppiwul comportement yi amul benn njëriñ wasalaamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salaam wa rahmatullah من أهله أبدا إلا وسيمه في